am ku mën a xam ba wala nga am gaz bu baax li ko waral nag mooy togg bu ñoragul mooy fii ñor fii bañ a ñor ak yooyu noonu ba nee naa la dana am ñu bokk ñu gaa yi foogul am ñu ñu téye ñu gaa yi foogul ñiy bokk ñee bañ a bokk di élection bu bëri coow parce que li ko waral nag wax naa ba tàyyi ne leen na ngeen ko dàq mm-hmm. man de bu ma sañoon dañ koy dàq ndax bëgg a taxawal loo xam ne biddéew ba taxawul kenn xamut ba noppi na la ma lànk du ma ko nangu boo moytul fa lay mujjee xëccoo bu tar démb xëccoo bu tar élection yi kenn du ko puus ñii naan Karim Wade day ko far fos ñii naan reporteek ñi naan nangam ku nekk ñii naan lii waa waa waa patriote yi waa wallu di waxee fii waa APR di waxee fii mu jur maanaam coow loo xam ni mësuñu dund élection yu mel nii te ba ma koy alerté di leen wax ne leen élection yu doy waar la togg gumba gaana sax àgg naa fa ak ñoom. Mm-hmm. mooy élection yi ndax élection boo xam ne dañoo jékki-jékki di tudd ay juge conseil constitutionnel. di ko wax dem ba ensemble yóbbu fa ay juge naan dañ leen àtte ñii naan lii ñii ñoo leen war a àtte ak élection yoo xam ne président Sénégal du ci bokk. Mm-hmm. loolu mës ñu ko am ci Sénégal. élection boo xam ne tamit vingt vingt candidats ñoo dem mës ñu ko am ci Sénégal. Mm-hmm. kon élection la yoo xam ne moom ñëpp maasa ba noppi ne la waxoon la ne la boo maytuwul sëñ ba élection yi mooy élection wu day nekk élection wu 1993 fii lañ ko waxee woon. ne la nag bu nekkul nag seexandoom nekkul copie conforme dana nekk seexandoom baa mu nekk mag ak raq lañ di la ñuy rawante lu tuuti la waaye boo xoolee mhm. ba ci conseil constitutionnel ba ca jamonoy 1993 coow li bañ na ko ba Alioune Tine sax bi mu génnee di wax da nga dafa wax ba tudd 1993 ya élection yooyu moom la moom la leen di rappeler ñu siy tiit boo moytuwul la xewoon 1993 te loolu noonu yàgg na yàggul ba noppi tamit Alioune Sall it bi mu génnee di rakku président da ngay gis moom it bi muy joxee exemple dañ naan bu ñu moytuwul la xew a 1993 mboolem juriste yëpp ak mboolem ñi xam politique xam liy raam te jëm ci ñag bi tamit ñu bëri tiit si ci élection yu mel nii nga xam ne doy na waar est-ce que sax nekkul magi élection 1993 yi te demagul fenn tàmbalaguñu campagne résultat yi définitive yi nga xam ne mooy élire cinquième président bi ñëwagut te élection yi coow lii mu amee ak nii mu demee ci fii sa yeeg jaxasoo gi mu jaxasoo loolu bi ñu koy wax booba yàgg na na ma ko doon gaafalee élection yi di ko alerté woon nit ñi di leen ko wax loolu dañoo demaat ba tey ñuy dund loolu kon nañu maytu misaan bi tey bàyyi xel misaan bi te xam ni waxeewul waxi larax par parloowul man duma président Macky Sall du ma président Ousmane Sonko du ma kenn ki ma nekk mooy li nga xam ne mooy njëriñal Sénégal ak bu ma sañoon tey président Ousmane Sonko ndax waxeewu ma sëñ ba ngir tey bu ma sañoon li ma doon wax ci président Ousmane Sonko ci jamono yi bañ koy waaj a tëj bu ma sañoon du am tëj bi dañ may vaar wax ni moo ne waxoon na ni Sonko dana dugg kaso te du dugg kaso. parce que loolu ma gënaloon sonk bañ a dugg ndax bi ma koy wax misaan bi duy wax ngir am ay résultats ni waxoon na ko am na moom doxewul foofu misaan bi li ko tax a jóg mooy alerter gàllankoor bu war a dal nit. mu teel la ko wax nga teel a jug fànk ko. ne bu ma sañoon président Ousmane Sonko du dugg kaso ginnaaw barikaat ba it la ma ko doon wax bu ma sañoon da doon wax naan ginnaaw barikaat ba musiba ca am te musiba amu ca ñu vaar ko bu ma sañoon tamit li ma doon wax naan boo moytuwul dinañ publier liste yoo xam ne doo ci gis pré président Ousmane Sonko bu ma sañoon du am dañ koy vaar. Mm-hmm. lii may wax tamit naan bu ma euh, président jo euh, Bassirou Diomaye Diakhar bu ñu demee ba le 25 février damaa bëgg mu nekk loo xam ne patriote yi dañ ciy toog gat ci seen lu bëgg a jege presque weer yoo xam ne ay semaines yoo xam ne daanaa def révélation mhm. yoo xam ne damaa toog ba mu yàgg ma ne ah uude lu mu wax ci béy bu feebar dañu yaakaar ni derbaata ndax di woo di woo di woo di woo ña la di gis nit dana mëkk mbëkk miir bi nga di ko alerter teewul mu tay boppam ci miir bi génn ne moo ne kii waxoon na ma ne booy xëcc rido bi foofa nga jëm baaxul da ngay mbëkk sa kii waaye dangay ngay dema dema dem ba da ngay toog mais doo ko mën parce que da xool ëllëgu xale ya ne ca kaso bi ëllëgu Sénégal yaakaaru ki ñëpp yaakaar nga bañ yaakaar yooyu tax sëñ Bamba. yow élection yi. Euh, mhm. cinquième président bi déewu cinquième président wala ki war a nekk cinquième président ci Diomaye nga ko gis wala ci Ousmane Sonko ci misaan bi ci kan la ko gis. waaw misaan bi moom ka mu yàggoon doon alerte da di leen ko wax dafa ne jamono yii bi déew ba la fay jëli laata muy dugg waxoon naa ko fii. Mhm. ne leen cinquième président bi moo ko koy may moo ko koy xañ booba duggagul nañu arriéraat samay vidéo ma ma sañoon sax mboolem vidéo yi ñu defoon dañ koy faat pour nga xam ni misaan bi ñëgul ba tey. toog di wax am na ku ma doon alerté di ma wax naa ma loo xam ci vidéo yi président Ousmane Sonko wax ma ni ko nag defal nànk misaan bii laata borom vidéo yi di dugg kaso lay toog fii këram di wax lii ak lii ak lii ak lii kenn sañu maa tëj ku ma tëj dinaa génn am naa doole am naa nàngam misaan bi taxaw naan ko sëñ bi moytul séenal naa la lii fanqal leen ko ko day dugg ba mu xëy dugg kon nag boo may wax ay vidéo yoo xam ne dañ ko enregistré génn naan Sonko wax na lii ak ma ne ko déedéet vidéo bi doxul ci Sonko nee na nangam li muy dox moom tout le temps te di ko kii mooy gàllankoor goo xam ne gisal na ko président Ousmane Sonko ci boppam mu ne ko sëñ bi maytul gàllankoor bi. Ah, ok parce que boo seetee loolu misaan bi doon wax ñu koy agressé sëñ Xaadim. ok Bamba. Mhm. lañ la mu doon wax ñu di ko attaqué pourtant président Ousmane Sonko li sabab vidéo yi ñuy wax pourtant loolu la wax ci vidéo bi de. dafa am ku ma alerté wax ma ne ma dinañ ma barricade ñu ndax gendarme yi am naa fa nit am nit fii am fa la ñu informé ma looloo taxoon ma def vidéo bi nga xam ne tey moo sulaase gars yi te pourtant kooku noonu bu fekkoon ne dañ koo gisee dañ président Ousmane Sonko dégloowu ko woon xel da koo dégloo xol mën na ne ko sëñ bi bul ma fontoo man mii mënumaa am mbooloo mi bëgg ma mm-hmm. ma am doole am lii ba noppi nga ñëw jàkkaarlook mën naa ma maytul barricade bi ginnaaw barricade bi dañ lay tëj ginnaaw dinañ tas sa parti waaye da koo dégloo xel nekk si baynal xaw fu war a jaa rasile patriote yi na leen kenn du ma tëj juge président Macky Sall yi mënuñu maa tëj mënuñu maa def nangam waaye teewul nag nee nañ mu daas fanaanal ba daas fanaanal bii nii moo ko waral lool waaye léegi président Ousmane Sonko bu ko weddi woon jël taxañ li ko waa ji wax yëpp ci information sànni te pourtant information yooyu yëpp loolu la sëñ maam Cheikh doon wax te ba mu koy wax am na ñu ko mere. am na ñu doon bañ a partager ay vidéo am na ñu koy ignorer jàpp ni kii muy wax waxul jàmm. ne nit dina jóg pour dimbali nit waaye da nga da koy dégloo xel bañ ko dégloo xol. d'accord euh, Serigne maam Cheikh Fall. Mhm. donc yow euh, tey vidéo yooyu. ban mhm. commentaire nga ciy def par rapport ak euh, sénégalais yi ni ñu ko defee ñu bari. ñu ne woon comme ni nga ko gisale woon Ousmane Sonko xañ na moom itam noonu la gisee woon ne day dugg kaso lii lay waral mu def. waaw moo def vidéo yooyu parce que li ko waral dafa am ku ko ko informé ci saayir waaye borom misaan bii nii la mu doon jàllale kay njëriñ laa ngi noonu. xëy na sa président Ousmane Sonko bu doon dox ci lii gëm ko ndax ñu bëri nee nañ taxul mu mu mu kii ko mu di ci dox mu gëm ko am na ñu ko wax gëmul mystique daal am na ñu ko wax kon tey bu yàlla dogaloon tamit benn kon man ak ki ko doon informé ca saa saahir man ma di ko informé ca baatin ci li ma xam misaan bi xamal ma ko bokk nañ daje ñoo bokkoon li ñu doon dox mooy mu teel a président ba ba fagaru moo gën faju mu teel koo yëg balaa dara xew loolu rek moo tax a jóg misaan mais tey bu ma bokkoon ca position wu ku ko laal laal laalaake kenn du la tëj ak yooyu noonu waa ji mënoon na ñëw nekk benn naafeq wala gars yi ko informé mënoon nañu nekk complice boo xam ne mënoon nañ bañ a toog gis ni dañ koy tëj ñu xam ci lu wér ñu ñëw naan ko sëñ bi jàmbaar yow kenn du la tëj yaa yaa yaa yaa yor bës bi yow sa doole bi nga àndal doo dem fii doo dem fële noonu toog rek di reetaan bu ñu génnee reetaan na cim gars yi de bàyyi bañ fekk ko foofu ba barricade ko rek buñ ko fa fekkee ba jël ko yóbbu ko tas parteem mais kooku dafa ànd ak honnêteté bañ a nekk naafeq mu jaral ko nag mu jug bëgg ko sauver nag bëgg ko dimbali mu laabire ko an nasiha mu daal di dem ci ci ci président Ousmane Sonko nag wala mu woo ko téléphone waaye moom moo ko waxal boppam gémminam sunu nopp ndax vidéo yaa ngi fi. Mm-hmm. mu ne dafa am ñu sax nee nañ ma dinañ la barricade bu ñu jógee ci barricade bi looloo waral nag mu ne kon naa def ay vidéo yoo xam ne video yoo xam ne bu ñu demee ba toll ci rek te nee nañ sax ay vidéo la am na yu génnagut des na yeneen loolu kon léegi kon man ak ñu bokkoon nañ gisuwaay jaaruwaay kon nag li ma doon wax ay nitam nañu ko ko fànkal waa léegi président Ousmane Sonko ma daasoon soon fanaanal am lu mu denc tey ay nitam yi amoon tànk kenn barricade wuloon ñu ne fii di laaj ci turam di denc ne président Ousmane Sonko jaral na leen lu leen tee tamit ñoom it ñu ñëw seeti borom misaan bi daal di daas fanaanal daal sëñ bi naka si pexe kon pexe ba président Ousmane Sonko def ci wàllu la mu mënoon rek ca kër ga pour daas vidéo yi fanaanal waa ñeneen ñi ñoom bu ñu ko defoon ci sëñ maam Cheikh jàmm na ñooy bu ñu ma dégloo woon xel dinañ ñëw ne ma ah, sëñ bi da dañoo dégg nga nga wax ni lii ak lii ak lii loolu nag sa fexe mais doomu aadama li yàlla naan wala a awala bi bihi bu leen gaaw a weddi mbir bu ngeen bu ngeen xamut nit du jékki-jékki rek di weddi sénégalais nag dañ koo mën nit day toog di wax lu mu xam lu ko ñor waaye dañuy toog fii naan cim diw mii dafa bëgg nangam diw mii dafa bëgg nangam te dañuy xëy xëy xëy gis loolee bu ñu xëyaatee tamit même personne bi wax it ñu tàmbale waat sànni xeer kii dafa soof yow xanaa sonko rek ngay gis xanaa sonko nangam parce que sonko moo ne ci problème sonko la nit ñi yaakaar sonko la ndaw ñi yaakaar sonko mooy wut beneen côté bi ñoom dañoo am ba noppi di wutaat mais bokkutal nag ki nga xamee ni tey da nga ko gisal gàllankoor mm-hmm. ay ndëgg sërëx gisal ko ay gàllankoor yi ñu koy gàllankoor ba noppi mu bëgg a toog ca cinquième président kooku nag ngay misaanal wax waaye tey bu fekkoon ni Euh, ñàkk bëggu président Ousmane Sonko wala tey mbiram ñoruñu dañuy jékki-jékki rek gis ni gàllankoor yi ñu ñu taxaw wax leneen parce que nit en général la mu nar ca caay-caay du la ko wax à piri loolu mooy jikkooy nit ku ñuul mooy dina xam ne ni yow mii ndax dañ naan bëñ weex na waaye deret ko lal day nit ñi dañ lay téye di la reetaan di la wax lu la neex di la jay ak di la raay fekk na ñoom xam na dëgg sarax yooyu ànd ak yow ba ci kàmb gi ñu bëmax la toog jàpp seen ñàmbur naan waxoon nañ ko ko xamoon nañ ko ko comme ni dal pré kii rek Aliou Cissé ndax sénégalais moom buy ànd ak yow mën na la tàccu mën na la def nangam di bég di kontaan mbégte am ñuy kontaan waaye bés boo essayé lu toll ni tarfatu ay ni fàtte nañ la boo juumee lu toll ni tarfatu ay ni fàtte nañ la dañ lay jël di la gaafalaka duñu duñu xool li neex waaye loolu loolu nag moo tax sëñ mbaam d'accord ñuy alerte loolu dinaa ci ñëw ñu ngi alerté bu baax. xam naa mën naa am ca fin émission ba. xaj na ñëw ci Aliou Cissé waaye li mu mm-hmm. bëgg a. Euh, mm-hmm. ñu euh, taxaw ci. Mm-hmm. waxtu bi tembe mooy naka ci pexe ci jomaay fi mu nekk nii. ndax tey nga misaanal jomaay wax ay date nee nga laaj nga ko papaam euh, yi ay dat ci ci ak dundam. misaan bi yooyu lay def. daf lay wax que dafa làmbatuwut moo tax ma ni leen. man kañ tele laay waxe misaan da lay ba nga juddoo ba. daf lay topp kañ ci nangam boo demee kañ nga jàkkaarloog baayam ne ko borom misaan yi nee na 1984 ak 1993 lan la ci loolu ci ndax boobu at yooyu noonu Basiiru Jomaay dafa tuut dafa tuuti mën na ko fàttaliku mais boobu dafa ndawee lool baayam moo koy gën a xam. te tawfiix bi mooy mi ngi dund. su ko ko waxee nag dana xam ne ni kii lii muy wax ci mbiru Bassirou Diomaye làmbatuwu ko moom jëmmi Bassirou Diomaye ci boppam ñett dat yi mujj yii moom laa koy laaj nee leen ko sëñ Maam Cheikh Fall nee na deux mille deux deux mille vingt ak deux mille onze ak deux mille vingt waaw deux mille deux deux mille onze deux lu mu doon ci moom lu doon ci moom d'accord misaan noonu lay def dalay topp sa giiru dund dama ne boo ko waxee kañ mu jugaat toog moom ci boppam mooy wax ka ko yónni nañ ko ko yóbbante nag te wax ko ko kaka ko wax mooy dëgg-dëgg soppeem kaka ko waxut nag moom ëllëg si biir nag complice la moom ndax man magum waxoon naa ko la du ma magum xamoon naa ko te sëñ Bamba lu nit doon def ba dee bu dekkee bàyyi ko jamono ji dañuy defar nag waaye yàquñu de njëlbeenug defar nag mën na ndurug yàq te nañu maytu nag naafiq naafiq ndax jëmm ci tool day nduru dugub waaye du dugub fa muy mujj tas yaakaaru borom tool ba néewal dugub ba Hmm? bari na ñuy woote woo patriote di woote woo bëgg président Ousmane Sonko wallaahi azim jëmb ci tool lañ day nuru dañuy nuru dugub te duñuy dugub fa ñuy mujj nag dañuy tas yaakaaru borom tool ba ndax dañuy lëndëmal tool ba néewal dugub ba waaw. Hmm. d' hmm. misaan noonu lay def. misaan dafay euh, topp doomu aadama bi ci giirug dundam même bu fekkee da ngay seetal nit sax dikk dire euh, euh, du question wu da koy seetal ci fi mu toll mais ba mu juddoo ba tey ci nga koy seetale ay ay ay mbiram. waaw noonu lay demee dafa lay xool càmbar la biir ak biti di gis lu